jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen waat bu baax a baax ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Lamp Fall TV ñu ngi fii ci Touba Mbacké ci wàccaayu màggal Touba 1442 ginnaaw gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di atum 2020 fas yéene doon le 6 octobre ñu toll ci wàccaay wi ñu fas yéene ànd ak yéen ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo ci dëkk bu sell bi mbokk yi tey xibaar yi dañ koy door rek Touba ca kanam ci liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy def ci dëkk bu sell bi di Touba te dooroon ko ngir waajal màggal gi defar yoon yi li jëm ci assainissement bi liggéey boobu nag euh, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir demoon na nemmeeku ji ko mu nekk liggéey boo xam ne avancé na lool ndax Serigne bi jot naa nemmeeku tali bi nga xam ne moom lañ doon liggéey ci quartier Kër Sa Ñaan tam nekk euh, liggéey boo xam ne bëri woon nay jafe-jafe mu nekk lu métti woon lool ba tax na fi mu toll nii daanaka ñu ngi ci euh, dernier réglage yi ngir mën a livrer li nga xam ne moo di tali boobu Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir rafetlu na taxawaayu Touba ca kanam sant leen ci seen taxawaay mu jëm ci euh, dëkk bu sell bii di Touba waaye it leeral nañ ko li nga xam ne moo jëm ci tali bi nga xam ne moom lañ doon liggéey ak li ñu ci def ak liñ ci daj ci coono ñu ànd teewlu kàddu yi. liggéey nañ ko dan ko doon liggéey ci condition yoo xamante ni si yu xaw na lii la yu xaw na xat la waaye yàlla suñu borom ak ak ndimbalu sëriñ bi dimbali nanu ba nga xamante ni si ni fii nu toll moment bii nii nii ñu ngi ci phase finale yi ba tali bi dinañ ko war a mën a daloo ci màggal gi ci njàmbaarul mbokki taalibe yi nga xamante ni si ni ñoom ñoo ci dugal seeni i seen i addiya wax dëgg yàlla fi mu nekk nii ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax ba tax na lépp loo xamante ni si ni war nañ koo def ci tali def nañ ko ci tali bi ñu ngi ko liggéeyee ci euh, condition yoo xamante ni si ni yu yaatu la ndax tali bi waroon naa doon juróom-ñaari mètre waaye def nañ ko ci yaatuwaay fukki mètre ci bi ñu ko defee ci yaatuwaay fukki mètre def nañ ko fondation boo xamante ni dañ ko décapé bu baax def fondation bu dëgër ñi nga xamante ni ñooy suñu équipe la bi ndikkee ba def seen i gis nañ ni résultat yi wax dëgg yàlla macha allah ñu doog a commencé nag jublu ci bicouche bi bicouche bi biñ ci jubloo ba toll ci phase bi nga xamante ni fi lañ toll ci lañ indee beneen équipe bi nga xamante ni ñooñu la ñu woowee équipe noire moment bii nii équipe noire boo dee xool ci tronçon bii nu nekk dem nañ ci à une pourcentage de 80 pour cent normalement d'ici deux jours tali bi nañ ko livré carrément lépp fii ak ñaari fan bu soobee yàlla tali bi nañ ko livré. kon nag lii nga xam ne mooy seen mandarga mooy waa Touba ci kanam mooy wàccal ilaahi maskani Touba abat mis lasmiha bi jaahi xayri man abat kon li fi àgguñ foofu rek mi nga xam ne àgguñ ci xaaya Touba waaye nag ñi ngi ci wasiilatu kon lii nag firnde la ndax ni ma ko doon waxee rek daayira boo xam ne ëpp ñetti at wala ñeenti at. tàmbali defari tëli maa ngi koy door ma sa ay jàmbaar waaye lii moom ci yéen la jëkkee kon nag nañ xam ne la Serigne bu Mbacké daa wax rek koy tëje dafa am ko mas a bàyyi dëkk mi ñàkk na ndox lool Serigne bi comme ni ko waxee rek balaa mas a wax kenn ki jëkk ki jóge Touba lay jëkk wax ne ko naka sama dëkk bu tedd ba mu ne ko Mbacké ba dëkk dëkk baa nga fa waaye ma ngi ñàkkum ndox lool sëriñ bi nag ko loolu de wax na diir bu gàtt dana jeex mu ne ko Mbàkke xanaa loolu ku gudd fan du ko fekke ku gudd fan loolu du ko fekke mu ne ko ku gàtt fan du fekke dara ñu teg ci ay fan mu faatu kon sëriñ Tuubaa lépp lu ñaan suñu borom rek lu mu tëg bëtam la ba may ko ko mu bind ko lii nag firnde la ci loolu kon nag ni ni ko ko Cheikh Mouhamadou Mountakha di seerale waxtu bu ne rek mooy ñaan ci Serigne Touba rek ngeen àgg fa nga jëm. te dara bañ leen doon. ndax lii kat njariñu ñëpp la. ñi ma nekkal ci biir oto bi kat wax naa leen nee fii de ku fi jaar. bu déggee ñu wax ci yéen ab safaan du ko mën a dégg. boo yeexee bu mënoon gàddu yo dóor la ko. ndax loolu jëfu ko may Cheikh Abdou Lahad daa wax ne. Mm. wax ak jëf li ko wutale. Mm. mooy boo yend woon wax fii ba déwén. Mm. ci ci mu bu ca su bu ca suba saa bu ëllëgee hmm. ku fa ku fa jaar du xam ne nii jaaroon na fa hmm. waaye boo doon fii ab bant rek samp ko fa hmm. ba ba téeméeri at li bant baa ko fa ñëw fekk ko fa kon jëf mooy mooy des mu nekkoon nemmeeku gi nga xam ne Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr amal na ko ci euh, liggéeyub tubaa ca kanam fii ci dëkk bu sell bi di Touba mbokk yi ba léegi ci xibaar yi ñu waajal quatrième édition colloque international sur le soufisme di kolog boo xam ne comité d'organisation bu màggal Touba gi moo koy amal tous les quatre ans ren ji nag mu fas yéene am ci atum 2020 bi ñu toll ci wàccaay wi ay boromi xam-xam fas yéene bàyyeekoo ca bitim réew ak ñoo xam ne ci biir réew mi la ñu nekk ñu fas yéene weccente xalaat ci thème bu am solo boo xam ne tànn nañ ko mu jëm ci xidma ak ndimbalante naka lañ ci mën a def ba mu nekk loo xam ne dana mën a jàppale réew mi ci njeexantalu mbas mi nga xam ne moo di euh, coronavirus loole nag euh, mu fas yéene doon le premier ak le 2 octobre bi ci fii ci Touba Mbacké ñu fas yéene ko amal ci visioconférence maanaam ci xarala yu yees yi ndax ndaje mi la ñuy moytu loolee nag comité d'organisation bi amal nañ euh, conférence de presse boo xam ne doon nañ ci leeral lép loo xam ne moom moo jëm ci wàccaayu colloque boobu ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Sam mi nga xam ne ci commission scientifique bi la bokk ci kàddu yu di ci dajale boroom xam-xam yi àdduna bi yépp ngir weccoog ñoom loolu nag bu ñu ko dee def dañu xam ne ni mu ko waxee léegi Sëriñ Tuubaa dafa liggéey lu yaatu ci xam-xam incarné ay valeur yu am solo yoo xam ne àdduna bi soxla na ko tey kon lu mel ne màggal nga xam ne événement phare la média yépp di ko bàyyi xel ci biir réew mi ak ci bitim réew jaatu nañ profité ci wanewaale njàngaleem Serigne Touba ci question yu bare bare bare yoo xam ne soxal na àdduna ndax àdduna bi àdduna échange la jokkalante la ci ñun am nañ loo xam ne ak bépp mën nañ cee jariñu ñun Sëriñ Tuubaa ak lim jàngale dañuy chaque année bu ñuy def colloque bi wala saa bu édition ñëwee dañuy tànn thème bu am solo wane ci li ci yeneen boroom xam-xam indi waaye wane ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ren nag ni ko sëriñ bi waxee ku ne xam na ne fi ne nii cercle de réflexion yépp ñi ngi xalaat ci conséquence su bi mooy jàngoro ji fi tasaaroo ci àdduna bi jeexit yi nar am ñépp ñu ngi def ay recherche di gëstu di waxtaan di xool naka la mën a def ba jàmmaarloo jeexee léegi waxatu waxatuñ sax jàmmaarloo mbas mi waaye jeexit yi fi nar a bàyyi loolu nag ñu gis ne am na valeur yu am solo yu nekk ci lislaam Sëriñ Tuubaa am lu mu jàngale ci wàllu xitma ñu gis ci biir Sénégal loolu niñ ko jariñoo ak njariñ li mu am nga xam ne ñeneen ñi mën nañ koo tuddee engagement communautaire wala ñu ko mën a waaye ci yoonu murid di xitma bi Sëriñ Tuubaa jàngale gis nañ niñ ko jëfandikoo ngir wayafal coono yi nit ñi ci biir mbas mi mu nekkoon euh, kàddu yi Sëriñ Sam yi nga xam ne yëkkati na ko doon leeral li jëm ci quatrième édition colloque international sur le soufisme mbokk yi ba léegi ci xibaar yi màggal gi wala wàccaayu màggal gi bokk na ci ki nga xam ne moom moo di Serigne Mboup di euh, PDG bu groupe CCBM euh, yabal na fii ci tubaam Mbacké ni mu koy defee at mu jot euh, lu takku ci ay bernde yoo xam ne da koy jàppale comité d'organisation bu màggal gi ren ji nag mu indi fi camion bi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool mu sëf si li nga xam ne moo jëm ci ay bernde muy boisson ak li jëm ci wàllum ndox lépp rek mu jébbal ko comité d'organisation bu màggal gi jaaree ko ci commission intendance mu nekk loo xam ne nag ñoom rafetlu nañ ko bu baax a baax ci taxawaayu Serigne Mboup mu jëm ci at mu jot mu yokk bernde yi nga xam ne mu koy indi ci màggal gi ñu ànd teewlu kàddu yi Serigne Xaali Jaxate ak Serigne Morlo ci euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ginnaaw bu ñu leen jébbalee lii di bernde lenn ci ab siyaaram ci màggal gi ndax duñ wax sax participation ci màggal gi waaye lenn ci addiyam ji nga xam ne da koo jëmale ci. Cheikh mun Mountakha ak comité d'organisation bi ngir muy jàppale ñi nga xam ne eh, ci dalal gan ñi fi ñëw tax nii ñu ko gisee eh, ci xeeti naan yi ñu andi ci liñ ci indi loolu nag xeeb na ko lool dafa tolloog niñ ko waxee nit su fekkente ne sa langue dafa yaatu fu nekk nga bëgg faa jëf na nga ko bëggee doo ko ni mane waaye ku xam xolam da nga xam ne àgg na ci su ko manoon mboolem li ñuy màggale ci dëkk bi ku nekk moo lay fekk sa kër di ko fa def rawatina li sëriñ bi war a def waaye kon lii daf ko cee daf ko cee feeñal rek. ne sëñ Mbuub ñëw na. Mhm. ca yàgg naa ñëw ca saa bu ñëwee ñu xam ne ñëw na. Mhm. Mhm. kon li ñuy def rek mooy ci jëmmi sañ Touba ak jumaa ji ñu jàkkaarloo. ñu ñaanal ko. Euh, li fi mu bëgg àgg fépp mu àgg. ndax nit la ku baax ku fonk diine. Euh, ku gëm sëñ Touba. ku liggéeyal yoon wi. te loolu ñëpp seddal nañ ko ko. Euh, tey daaw heure bii. kenn njëkku leen fi woon mbiru ndox mi ñuy jëfandikoo aussi ci gànñeeg loolu dama ne bu doon téeméer euh, juróom-ñett fukki sëñ bu moo koy def at bu jot mbiru boison bi aussi loolu la li ma gis rek laa wax nag nag man mbokk yi ba léegi euh, ci xibaar yi màggal gi ci wàccaay wi euh, keneen koo xam ne indi na ay bernde ci wàccaay màggal gi moom moo di Aziz Ale Ndiaye mu indi fi lu toll ci ñeen fukki nag jébbal ko comité d'organisation bu màggal gi waaye it lim bu takk lool ci euh, diwlin lépp rek euh, ngir jàppale leen ci wàccaay màggal gi ak gan ñi nga xam ne dañ leen euh, war a berndeel bernde yooyu nag bi mu ko ñëwee jëbal na ko Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir ñu yëkkati fa ay kàddu rafetluwaat bu baax a baax diggante Touba ak Tivaouane waaye rafetluwaat bu baax a baax taxawaayu Cheikh mu taxa Mbacké Bachir rawatina ci fan yi téeméeri millions yi nga xam ne génn na ko jébbal ko xalif général des Tidianes sëriñ Babacar Sy Mansour mu jëm ci liggéeyub jumaay Tiwaawan ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci jataay bi sëriñ bi tabaarakallaahu waxoon nañ la ko daaw waxal la ko daaw jëkk ak at yi ko jiitu yépp la Baye Abdoul Aziz Al Amin daan wax naan nit ki ku ko xeebal bisam yaa ko tooñ boo xeebalee nit ki jàngooram yaa ko tooñ waaye rawatina boo ko xeebalee sëriñam sëriñ Cheikh tabaarakallaahu ku ne xam sa diggante cofeel gi nekk ca diggante ak moom Abdoul Aziz Alé Ndiaye ànd ak njabootu baay alxaaji Alé Ndiaye yépp lu tolloog limu ñeent fukki nag tabaarakallaahu ak diwlin joo xam ni tabaarakallaahu moom la Abdoul Aziz jël ci lim bu mag a mag ànd ak waa Jador yëpp ni bu ñu demee ca anatiq rasmi li tariqati al muridiya a Cheikh Mouhamadul Bachir Abdoul Khadr ñu biral ko ni ko lii suñu asaka yéene la ndax relation interconfrérique bi nga xam ni am na Sénégal te lañ cay dundal di ko ca doxal bis bu ne ñu gis ko nde ki dem rek nga wàcc ca Tiwaawan ci turu xalif général des Mourides a Cheikh Mouhamadul ko ñu koy ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ngeen ànd di suuxat seen mission mam bi doon indi jàppandal gi nga xam ni moom ngeen indaale doon ko jàppale njabootu maam Cheikh El Hadj Malick radiallahu anhu te xalif général éminence Cheikh Sidi Aboubacar Mouhamadou Mansour teeru leen gàttanu leen gunge leen am yëg-yëg yuñ ci am. taalibe nag buy roy sëriñam ci li muy dëggal di ko doxal dana war a mel ni jëmm jii toog di Abdoul Aziz Ale ci ni mu gisee sa diggante. turandoom sëñ Abdoul Aziz Al waaye gis ko diggante Touba ak Tiwaawan te loolu lépp di rafet mu ni naa sof roy ci loolu. mbokki xibaar yi màggal gi dañ ko te ak ziar yi nga xam ne moom la ñuy amal ci kanam ku tedd ki di Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides muy kilifa yi nga xam ne dañuy bàyyi ko fu ne ñëw di ziar sëñ bi di yeesluwaat di feddaliwaat seen kóllëre di jaayantewaat. waaye di sàkku ci moom ñaan waaye it di waajal màggal gi fa yéene ko ànd ak Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké Bachir waaye di ko ndokkeel bu baax a baax loolee nag moom moo tax kilifa yi nga xam ne moom ngeen jàkkaar lool kenn ku ci nekk di ñëw di ziare sëriñ bi ci wàccaayu màggal gi waaye lépp rek sàmmonteeg mesures yi nga xam ne jël nañ ko gis ngeen ni nga xam ne noonu ko kilifa yi defee ak sëriñ bi mooy takk masque yi waaye sàmmonteeg lépp loo xam ne moom moo di ndigal li mbokk yi lañ leen loon tey ci xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba ci wàccaayu màggal gi santaat leen bu baax a baax gërëm leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun dig leen dajee ëllëg ci allah ci yeneen i xibaar sant suñu cadreur di Chérif incha allah ni ki euh, suba yeneen xibaar lay doon fii ci Touba Mbacke jërë ngeen jëf